Euh, Serigne Touba ci boppam radiyallahu taala anhu wax na ne euh, képp koo xam ne de yaakaar nga ne mas ngaa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu mel ni liggéey bu ma ko liggéeyal man xaadima rasul maa ngi lay xamal ne njortu googee de sa njortu googee nax na la ndax maa ki nga xam ne maa ko liggéeyal loo xam ne kenn mos koo ko liggéeyal te kenn dootu ko ko maanaam liggéeyalaat liggéey boo xam ne mbindeef yëpp loot nañ ci moom lay wax ne euh, man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniyal xadim bi ma wana an mislihi kullu xadim liggéey boobu nag ci sëñ sëñ Tuubaa ci xasida yi la ko doon defee ndax bi xurmatil Mustapha man sirtu xaadimahu bin nazmi wa nashri la wax bin nazmi wa nashri sajaan summa mizaana daal di wax ne uhyi uluma diine bi taalif yi damay dundal xam-xam diine ci taalif ay xasida kon xasida yooyu nekk na xasida yoo xam ne xasida yu màgg lan xasida yu tedd lan xasida yu sunu borom màggal lan yu sunu borom sant lan xasida yu sunu borom bi subhaanahu wa taala gërëm lan euh, loolu nag dafa laa jamono ju nekk ñuy def ay gëstu ngir xam li ne ci biir xasida yi euh, ndax ni ma koy faral di waxee jamono ju nekk rek euh, xasida moom dafa mel ni que message boo xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou ba Khadim Rasoul def ko bind am ci di ci dayaale ak moom am ci yoo xam ne def koo bind jagleel ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam am ci itam yoo xam ne def koo def ci doon liggéeyal yonente bi ci diine ji am ci yoo xam ne maanaam daf koo jagleeloon jëmm yonente bi mooy yi mu bind di ko tagg ak li mu bind di julli ci moom ngir ñu gën a xam Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul gën a am lu ñu jàngee ci moom xam tamit Euh, lan moo nekkoon ab njàngaleem ndax Sëriñ Tuubaa du ko ñuy xam raabat ma xaamewoon si wal baaxil karim waaye ngir ñu koy gën a dolli ak bëgg jamono ju nekk fawu ñuy gëstu ak mbindam ba xam lu mu lu mu jàngale euh, ndax nit ki moom euh, mel na ni lépp loo xamante ne ni xamu ko rek ñaare du ko du ko du ko bëgg te nit ki lu mu bëggut rek du ko du ko wut lu mu wutut du ko am kon Serigne ali Badara ndjay mi nga xamantene def ñuy firil xasida yu jamono ju nek ngir ñu mën ko xam ñu ngi koy jaajeufel bu baaxa baaxa ba waye gëstu ba xam lu serigne Tuubaa wax ci xasida itam lu am solo la ndax dina tax ñu gën gor góorgóorlu bu baaxa baax gëna xam lan moy mooy serigne Sëriñ euh serigne Tuubaa momu nak daf ñoo fagul ci xasida yi lépp lo xamantene ni euh suñu njëriñ la mo xam muy njëriñul aduna wala njëriñul alakhirah fagul ñuko defal ñuko ci xasida yi waxal wax ñuko digal ñu ñuy jàng xasida ndax dafa wax ne li yaalam kullu man taallaqa bi annani taba annani tawajjahtu ila allahi tabaraka wa taala bi tawaalif takunu fiha manafia al muslimin wal muslimat fi dunia wal axira képp koo xamante ne dangaa aju ci man moom sëñ tubaa radiallahu anhu mooy wax mu ne képp koo xamante ne dangaa aju ci man na xam ne jublu naa sama borom subhaanahu wa taala ci taalif ay xasida yoo xam ne danañu làmboo danañu làmboo njëriñal jullit ñu góor ñëpp ak njëriñal jullit ñu jigéen ñëpp kon nag lépp loo xamante ne nit ki mi ngi koy sàkku ci njëriñ rek su ko wutee ci xasida yi suñ borom subhaanahu wa taala mën na ko ko mën na ko koo defal ndax day liggéey bu màgg liggéey bu tedd bi suñ borom sant gërëm euh, def ci tamit ay ay xeeti may yu rëy rëy rëy rëy nga xamante ne yiw yu nekk ci xasida euh, neewaa a nga gis foo koy foo koy foo koy amee ndax mel na ni ginnaaw alquraanu karim Euh, gis mbind moo xam ne da koy jàng mën cee jëlee al wusul ilallah muy egg su yàlla suñu borom subhanahu wa dafa mel ni ci xasida yi képp lañ ko gis loolu nag lépp loo xamante ne dafay wane màggaayu xasida euh, sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu dafa ñaanoon suñ borom subhanahu wa taala ne ko xabliya kaw nu mi yan xalumin lawxika yaa man li saadati damin euh, foofu itam nga xam ne day wane rek ne xasida yi lu mag la loo xam ne bokkul ak xasida yi nga xamante ne ay nit yàlla taalif nañ leen maanaam loolu def lay woon ni mbindam sëñ Tuubaa gën a kawewe mboolem mbind gaa yu baax yi ndax boo gisee mu ne xabliya kaw na xale mi yan xale min law xika yaa min li saadati damin foofu sëñ Tuubaa ngir saa bu xamante ne mi ngi bind rek mu am autorisation di mën a toxalee ca lawxul mahfuz Euh, bi nga xamante ne ñaan na ko suñu borom subhanahu wa taala xam ngeen ne lépp lu mu ñaan suñu borom euh, suñu borom daf ko koy joxe comme nu mu koy sàkku ci moom dafa wax ne yaquudu lil baaxi bi jaahi raaxi jumlata ma talabtu fii aw raaxi la wax lu mu koy lu mu koy sàkkoo la ko suñu borom subhanahu wa taala di ko di ko joxe noonu moo tax am na feneen sax foo xam dafa bind di wax ne aktubu naaxilan min al lawxil xafiz maanaaya ridwaanul ali wala fiis maa ngi bind man sëñ Tuubaa waaye maa ngi toxalee ci lawxul mahfuus kon mbindam sëñ Tuubaa xasida yi nga xamante ne moom la ñu jàng ñu xam ne sëñ Tuubaa kat bi muy bi muy bind mi ngi doon toxalee ca lawxul mahfuus ca alluwa suñu borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne law lawxul mahfuus euh, nekk na loo xam ne bépp xew-xew boo xam ne xew na ci àdduna rek loolu fekkoon na suñu borom bind ko ca lawxul mahfuus euh, moo tax mbindam sëñ Tuubaa dañuy dem ba ay jëmmi jamono. gis loo xamante ne Sëriñ Tuubaa jàngale woon na ko ñu mu feeñ ci xasida yi loolu dafay wane màggaayu xasida kon su ko defee yal nañu suñu boroom saxal ci xasida yi ñu di ko jàng bu baax a baax te di ko sellal di ko def nag ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa sàkku cee am ngërëmul suñu borom ngërëmul suñu borom mooy ngërëmul Sëriñ Tuubaa mooy ngërëmul yonent bi sallallaahu taala alayhi wa sallam te sëriñ ñaanoon suñu borom subhaanahu wa taala ne ko wajal makaatibi bi jamia yaa xayra muxnin lam yazal samia ridan kabiran baaxiyaatan saalihaat wajaxal tijaarati ladayka rabihat dafa ñaan sun borom ngir xasida yi nekk ridan kabiran gërëmul sun borom lu mag gërëm lu mag nekk tamit baaxiyaat ak saalihaat ñoom xasida yi euh, nu ma ko waxee léegi lépp lu ñaan sun borom sun borom defal na ko ko moo tax am na feneen fu mu bind di di xamle ne xasidaami kat sun borom defal na ko ko muy ngërëmam lu gën a màgg far wax ni kitaabati jaalta ak bara ridan la day ka xat waxeete ni xayra ridan yow sunu borom yow mu ma fegal lépp lu dul sa ngërëm nga xamante ne lépp suñ tubaa rek ngërëmul suñu borom la bari baritu min kulli shay'in lam yakun biridan moxnin min bi yasul yàlla xarada dafa ci lépp lu yàlla gërëmul kon kooku léppam lu yàlla gërëm la mu ne suñu borom mi ko fegal lépp lu dul ngërëmam nag jël na xasaayidam yi def ko muy ngërëmam lu gën a màgg kon kiy sàkku ngërëmal suñ borom su ko dee wut te di ko jaare ci xasida yi tey sellal suñ borom subhanahu wa taala mën na ko koo defal yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñun ñun ñëpp kon su ko defee 88 628 19 25 mooy buumu jokkoo bi 88 628 19 25 mooy buumu jokkoo bi laaj bu njëkk bi mooy allamani man kaana li bi karamin watilxi allamani maa kaana xablal xalxi man kaana lii bi karamin wa tilxi ñaareelu laaj bi mooy wajal kitaabati ka kulli mursali yaa man wahabtali ujura rusuli wajal kitaabati ka kulli mursali yaa man wahabtali ujura rusuli su ko defee soxna jaan jaayante siise nekk fële ca rajo Lamfal FM moo jaayante xasida yam baax woon di jaayante mooy xasida ak jaalibatul maraaxib ak xasida gi nga xamante ne mooy mawaahibu naafiya kon ñu ñu déglu sëriñ Abdul Xaadir Diagne wala sëriñ Maam Góor Diouf ci xasida gi nga xam ne mooy xasida ak mafatihul bisril kubra mel na ne am na mbokk mu doon yéglu léegi waaye suñu dégloo xasida lu toll ci benn simili rek danañ mën a ànd ak yéen bu mu jokkoo bi incha allahu taala kon li ñuy def mooy ñu ànd ak sëriñ Maam Góor juuf ci xasida gi nga xamante ne mooy xasida ak mafatihul bisril kubra bokk ci xasida yi nga xamante ne moom itam xasida yu gën a xasida yu gën a rëy moom xasida yi nga xamante ne mooy xasida ak mafatihul bisra قصيدة قوية ملول تميت كون بسم الله سرين مام غور يوف وسلما عليه في الآل العزيز